ginnaaw loolu bu ñu seetloo ci jamono yii ñu nekk bari lool luy xew ci ay accident yoo xam ne ñu ngi am ci tali bi moo xam ci biir ville bi la wala moo xam ci ginnaaw yeneen région yi la nga gis ñin ci faatu ñëpp ñaar moo ci am mooy kenn dafa jógee woon ci biir këram jëm ci bërëbu liggéeyukaayam keneen ki jógee ci liggéeyukaayam wala ñibbi ci biir këram waaye ñun ñëpp dee jënd leen ci seen yoon kon mu nekk mbir moo xamante ni bu ñu ko waaj wóolu ñoom ñi nga xam loolu daf na leen keroog dinañ am ak mbetteel waaye tamit dinañ yedd seen bopp waaye ñun ñi nga xam ne ñoo fi deseen yéen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wane woon aksiru min zikri haadihi lazzaat mu ni na ngeen bari lu ngeen di tudd ak di fàttaliku dee bi nga xamante ni saa yu ñëwee daal di màmm bépp bànneex bu ngeen nekkoon dee moom nga xamante ni bu farraqul jamaat ay mbooloo lu ñu bari bari dee bu ñëwee daf leen tàqale day jël par kenn di jël di jël ba mbooloo ma daal di jël tàq comme yettimul baniina wal banaat yéen di faasal ni dee moom moom mooy kiy jirim loolu ak di bàyyi loolu nit ñi mu nekk loo xam ne ñu war a waajal la ñun képp kuy ab yi na suñu borom subhanahu wa taala nee na dee moom duñ ñëw lu dul ci mbetteel al mawt la yati illa bartatan luy ñëw ci ak mbetteel rekk lay ñëw moo tax jullit bu nekk daf ko war a waajal boppam yéen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ni jaani jibril fa qaala ni ya muhammad isma sitta fa innaka mayitun wax bit ma sita fa innaka mufaariquhu waamal ma sita fa innaka majziinu bihi nee na jibril alayhi salaam dafa ñëw ci moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ko maa ngi lay xamal yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam dundal ay at ba mu bari bari bari xamal ni bis mi ngi ñëw nga daal di génn ci àdduna nga daal di dëgmal àllaaxira waaye bëggal bu la neex waaye xamal ne bis bi nga ñëw kooku nga bëggoon ak fu mu mën a toll ci yow imma ñu ko suulal ko ginnaaw wala ko suulal daal newal ginnaaw kon tàqali ko dina am waaye dina jëf taxam ni bépp jëf doo jëf ëllëg sa borom subhanahu wa taala dina la ca xisaab waaye tamit dina la ca fay bu dee lu baax la mu fay la ca aljanna bu dee ak sofaan la mu daal la ciy fay safar yal nañ ci yàlla musal kon dafay war ci ab jullit muy fàttaliku dee waaye tamit di fàttaliku tëraay dee muy tëraay sukuraat yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa musa toog gis ci buntu këram daal di seen ci almeel yi gis am benn pax bu ñuy gas pour denc fa ali waaye dawul mu laaj saxaaba yi ne ñii lan lañuy def ci almeel ya yu ñu ko dafa mel daam ku wàññi bu koy gasal bàmmeel nee na ci saa si kanam daal di soppeeku bu Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mu daal di waaxu ba àgg ci bàmmeel ba daal di taxaw nee na jékki-jékki gis ay rongoñam ci toog bu Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam muy xool asamaan di xool suuf di xool asamaan di xool suuf ba muy ñetti yoon mu ni leen lii kat waajal leen ko te xam ni kenn ci mënu ci mucc mu ni bu nit tollee ci sukuraat bu dee koo xamante ni ku war a texe la suñ borom subhanahu wa taala dafa yebal ay malaayika malaaka yi dañuy sol lu weex tàll seen kanam daal di rafet leer ba mel ni ay jant ñu daal di ñëw ngir jël si ruuxu ku tedd kooku nee na bu ñu ñëwee ba toog nes tuuti malakal moom daal di ñëw bu ñëwee ni ko ay yatuhu nafsu tayyiba yow bii di borom bakkan bu tey bii génnal nga daal di dem ci sa yërmande boroom ak ci ngërëmam nee na ruux bi daal di génn génn ko dal daal di génn génn bu sedd lool malaaka moom daal di koy jël ñu daal di koy laxas ci ay càngaay yu mel àjjana daal di dimbal ak moom ca kaw asamaan mu ni waaye bu dee koo xamante ni si ab kàccoor la woon moo xam jullit la moo xam yéefër la waaye daan def def kàccoor mu ni malaaka yi buñ koy jël si dañuy indaale ak melo melo bu ñàng lool la ñuy ñëwaale nee na bu ñu ñëwee des tuuti malakal mawt daal di agsi ni ko yow borom ruux bu tilim bu salte gii génnal leen sa mbugalu borom nee na ruux bi daal di tiit ak tasaaroo ci biir yaram bi malaaka yi di ko bif nee na di ko bif bif bu metti lool nee na loolu bu ñu ko tegoon du ñu toll ci xaaral boobu rek du ko àttan ndax metti bi nga xam dina ko yëg kon loolu bu jar a xalaat la bu jar a waajal la muy dee ak lay am ci ginnaaw dee suñu borom subhaanahu wa taala wax ni kallaa idaa balagati taraaqi wa qiila man raaq wa zanna annahu alfiraaq wa daffati saaqu bissaaq ilaa rabbika yawma idin almasaaq mu ni bu nit ki tolloo ci sukuraat ba malaaka yi di génne ruuxam ñu yëkkati ñaari tànk yi ñuy dalante tànk boo yëkkati mu laay dal ci suuf ngay yëkkati loxo yi muy dal mbokk yi di jaar naan kan moo ko mën a faj waaye moom ñu tëdd xam ne ni tey jii moom lay war a daje ak suñu borom subhanahu wa taala ku ko waajul boo àggee foofu rek keroog ñu nga rëccu foo xam ne rëccu la fa jenn yéen ñi saa saa ñu gis nga nit mu tolloo foofu ba ruux gi malaaka yi di ko dindi di ko jël mu ni bàmmeelam dafay wax ak moom ni ko yow doomu aadama bi maa ngi lay xamal ñeent yii ñu ngi ci man mooy man kër bu lëndëm laa kër bu lëndëm laa loo fi indi lu la leeral tey ji doo fi am ak leer kër bu tumuraanke laa ndax yow rek yaa nga dëkk tey waaye kër laa koo xam ne du ma jël par ñaar par kenn rek lay jël waaye xamal ni am na ay sax yoo xam ne ñu ngi may xaar ci biir lenn rek mooy seen yitte mooy lekk sa yaram nii xabaru daal di waxaat ak doomu aadama bi nga xam ne mi ngi bëgg a jëm si ci moom ni ko daal nga dox ci kaw suuf di reetaan waaye tey jii yow rek yaa war a wér ci biir suuf amul benn kuréel fi wér bu dul say jëf imaam bu nekk yu baax wala imaam bu nekk jëf yu ñaaw ni ko daal nga kontaan lool di dégg ci kaw suuf waaye tey jii di nga jooy koo xamante ne amul kenn kuréel fi mën a nax ci biir suuf ni ko yow bu fekkee na nga daan lekk lu xaraam bu dee na nga daan tooñ tey jii xamal ni am na ay sax am na ay jaan yoo xam te ni loolu rek dañuy xaar ci yow ngir tooñ nga daan tooñ yàlla koy faye fii sa biir bàmmeel balaa nga àgg ëllëg ci àllaaxira waaye yow doomu aadama bi bu dee na nga daan xool loo xam ne sa borom daf koo xaraamal ci yow tey jii di nga gis lool ci man loo xam ne bu koy tiital la waaye bu dee da nga daan déglu loo xam ne lu xaraam la ci yow lu mel ni nga musique tey jii di nga déglu lool loo xam ne lu lay tiital la ci man moo tax yéen tamit saa su daan wax ni dee leen dem di ziyaare di bàmmeel yi ndax bu ngeen koy ziyaare yi dee leen fàttali li nga xamante ni mooy dee ak wax li nga xam ne war nga ko wax ak yéen moom bàmmeel yi mu ni da ngeen dem di ziyaare bàmmeel yi fa innahu tuzakkirukumul aaxira da ngeen dem di xoolaat bàmmeel ndax daf leen di fàttali àllaaxira ci loolu ci ñàkk solo bi nga xamante ne àdduna ñàkk na ko solo ak nit lu mu fi yàgg yàgg ëllëg ci biir bàmmeel lay mujjee moo tax suñu xaaji Maalik radiyallaahu anhu daal di wax ni rukuunuka li dunya ghuruurun wa ghaflatun wala tarkanan illa li daari baqaa'i muy sa jéng jëm ci àddina xamal ne ak sàggante dong la ak ñàkk xam moo la jàpp mu ni jàngal jëm kër gi boo xamante ni kër googu mooy kër gu sax muy kër gu àllaaxira mu ni laxad raxada al axdaabu an daari muqlatin waxad sakanu baadal arabi arabi mu ni soppe yi fi nekkoon ñëpp jugeen tey ci àddina ñoom ñëpp ginnaaw ba ñu dëkkee ci seen kër yi tey génnee nañu gi seen kër yi daan jënd jëndal gi seen bàmmeel ci àll ba nga xam ne kenn mënu fa dëkk ak ñoom te am ñu si moom subhanahu wa taala الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل المرجع إليه وإن تال العبد أملا أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ginnaaw ba ñu santaatee suñu boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo bind dee lu jiitu muy bind dundu ngir ñu xam ne képp ku dundu di nga musa dee waaye suñu boroom boobu subhaanahu wa taala def ginnaaw ba ñu faatoo ñun ñëpp ñu war a ñëwaat ci moom mu daal ñuy xisaat ci ngi def yi nga xam ne def nañu ko ñu ngi koy sant moom suñu boroom subhaanahu wa taala ci ay ngëneelam ak xéewalam yi ñu jagleel di seede ne amul benn buur bu dul moom suñu borom subhanahu wa taala di seede tamit ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ay tamit ak ndawam la yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli ci moom ak saxaaba ak ñeneen yëpp. ginnaaw loolu jaam yàlla yi dafa am bis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu di doxantu ci biir Kuufa ba jekk mu daal di romb ay armeel mu daal di taxaw daal di nuyu daal di yéen ñi nga xam ne yéen tëdd ci bàmmeel yi li ngeen bàyyi woon ci seen ginnaaw bu doon ay soxna soxna yëpp amaante ay borom kër gi seen ginnaaw bu doon alal ngeen ci bàyyi alal jépp seen i njaboot seddoo leen ko bu dee kër ngeen fi bàyyi wala néeg kër ba ngeen fa bàyyi woon wala néeg boobu am na ñeneen ñu ko dëj ci kër gi mu ne loolu de moo xew fii ci àddina maa ngi leen di laaj yéen ana lan moo xew foofu ci yéen ci àllaaxira ginnaaw ba jaam bi xamee ni lépp loo am ci àddina fii nga koy bàyyi day am mbir yoo xam ne dafay wargaale ci góorgóorlu yéen ci bisalaasam dafa wax ni iza maata ibnu aadama inqata anhu amaluhu illa min salaas ni doomu aadama bu génnee àddina mu ne ay jëfam yépp dafay dog ba mu des ñetti jëf kon ñetti jëf yooyu bu nekk war cee taxawaat góorgóorluwaat mel yaa ngi biir àllaaxira jëf yooyu dañ la cee fay di la ko indil foofu ci àllaaxira mu ne ba ca jiitu mooy sadaxatil jaariya mooy sarax boo xam ni dafay dund di dox bi maanaam mu mel ni ku tabax ab jàkka jàkka bi tànk mi ngi dund lépp lu fa waay jaamu yàlla sa borom subhaanahu wa taala dina ci denc yàlla wala boo mënta tabax ab jàkka nga fekkee fu ñuy tabaxee ab jàkk nga daan ci dugal sa dërëm lu mu néew néew néew ba këram bi su pénc suñu borom subhanahu wa taala daf la cee fay wala ngaa ni jëmbat ab garab garab boobu képp ku di féexlu da nga cee am ci yàlla wala ngaa tabax ab daara fu ñuy jàngee alquran képp ku fa jàng xalaat bu ko jàng suñu borom subhanahu wa taala dina ci fay ci yàlla yow mi nga xam ne yaa ko def dem sax doonte da ngaa génne àddina ñu ni boobu mooy ci jiitu aw ilmun yantafau bihi wala nga bàyyi ci xam-xam boo xamante ni nit ñi ñu ngi koy jariñoo ci sa ginnaaw mu ngi mel ni nga jàngal nit nit koo ko jàngal keneen xam-xam boobu di yow képp ku ci mën a jàngee ba ko ci yow la jiitu woon yow su borom subhanahu wa taala ba cee bindal ci yàlla ndax jàngal bi nga ko jàngale mu ni aw waladin saalih yad'u lahu wala nga bàyyi fi doom ju baax bu lay ñaanal ci sa ginnaaw lépp lu la ñaanal da lay fekk ca barsaax mu nekk ay yiw yoo xam ne suñu borom daf ko koy bindal ci loolu mu waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lii nga xamante ni moo di saraxatul jaariya mooy sarax boo xam ne dafay dund ak di dox mu ni man bana masjidan bana allahu lahu baytan fil janna mu ni képp koo xam ne tabax nga ak néeg néeg boo xam ne néegu suñu borom subhanahu wa taala mu ni sa borom subhanahu wa taala dina la ko tabaxal kër ca aljanna mu ni waat man bana masjidan yabtaxi bihi wajhullah bana allahu lahu misluhu fi janna mu ne képp koo xamante ni tabax nga benn néeg ci néegu yàlla yi tabax koy tabax benn nébét rek nga ci amoon mooy def ko te yàlla tax mu ni bu ëllëgee yowmal xiyaam sa borom subhanahu wa taala dina la tabaxal ak kër ca biir aljanna mu waxaat bu yéen sallallahu alayhi wa sallam ni man bana masjidan ka misxasi xattaatin aw asgar bana allahu lahu baytan fi janna mu ni képp koo xamante ni tabax nga benn néeg ci néegu yàlla yi mu ni doonte néeg bi dafa tuuti ba toll ni ak tàggu picc mu ni sa borom subhanahu wa taala dina leen tabaxal kër ci àjjana loolu li muy wane mooy bu ñuy tabax ak néegu yàlla doonte benn birig rek nga am nga teg ko fa su borom subhanahu wa taala dina leen tabaxal ak kër ci àjjana ndax dafa ni ko tabax néegu yàlla bu toll ni tàggu picc kon lu ci waay def moo xam birig la suñu borom subhaanahu wa taala daf la koy fay kër kër ca àjjana Abu Hurayra radiyallahu anhu di waxaat ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yi nga xamante ni nit ki bu génnee àddina suñu borom subhaanahu wa taala dafay continuer di ko ko fay mooy xam-xam boo xamante ni jàngale na ko wala xam-xam boo xam ne wesaare na ko mi ngi mel ni nga nekk ci benn réseau réseaux sociaux yi nga gis loo xamante ni xam-xam la waxu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nga xam ni boo ko partagé nit ñi jëriñoo ko nee na boo ko partagé doonte partage baa ngi dox ba ëllëg yow la xiyaam si borom subhanahu wa taala la cay fay xiyaam mu ni itamit war nga bàyyi ko doom bi baax bi lay ñaanal wala nga tabax benn néeg ci néegu yàlla yi loolu lépp boo ko defee boo faatoo itamit day nekk mbir moo xam daf lay teg ci sa biir bàmmeel ñu nettali dafa am benn waaye bu amoon su boo mel wërsëg loolu mu daal di génnee ci wërsëg bëgg cee tabax benn néeg ci néegu yàlla yi liñ koy tabax bu ñëw ko ci entrepreneur bi nga xam ne moo jiite tabax bi ñu ko damaa bëgg tabax bi may tabax bu ci kenn dugal ab dërëmam lépp na nekk sama alal ma donc yàlla ko koy nangu bi ñuy tabax bay bëgg a àgg ci kuule am na benn maire boo xam ne mu ngi dëkk ci dëkk boobu maire bi këram sàkket la waaye benn birig moo fa nekk te saa yu jàpp kër daan toog mu daal ñëw ci maçon yi leen dimbali leen ba rek benn birig bii moom rek la am ci àddina ngeen dugalal ko ko ci néegu yàlla bi ñu daal di bañ ak moom bañ bañ ba xëy daal di koy nangu dala ko ciy def ki nga xamante ni moo génne woon alal ju bari daal di koy def ngir ñu tabaxal ko néegu yàlla bi nee na dafa gént gis ni kat néeg bii mu tabax am na ci koo xam ne suñu borom fay na ko ci loo xam ne moom fayu ko ci mu wër ci maçon yi di leen laaj ba xam da ngeen fay dugal leneen lu bokkul ak loo xam ne sama alal la ñu ne ko waaw am na benn neer rek bu fi indi benn birig ñu ne ko dugal ci jàkka te dugalu nañ ko ci mu laaj benn borom xam-xam borom xam-xam ba jëko yow sa alal nga cee jof suñu borom balaa dégg alal ju bari nga génne ci ay millions daal ci tabax jàkka waaye neer bi nag alal ak lépp la génn daal di koy joxe mu am ban lañ si dëkk ak yoon kon képp koo xam ne yaa ngi def ci néegu yàlla doo ko rëccu mukk ci loolu ci jumaa ji ñu nekk ci néegu yàlla bi dañ ko bëgg a yëkkati ci kaw ngir nawet bi bu ñëwee jaam yàlla yi gën a am fi mën a jullee képp koo xam ne nga gis a dërëm dala wu leer bi li ngeen di saa la wax ni képp ku tabaxal yàlla néeg bu toll ni tàggu picc suñu borom la tabaxal kër ci àjjana kon képp ku ci def na nga am yaqiin suñu borom daan tabaxal kër ci àjjana yàlla nañ suñu borom may dégg ak topp rabbana zalamna anfusana